mbégte euh, ci euh, ni ñu bàyyee ñu féex euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Tobène Maka Dieng ak Kër Maguey ñi nga xam ne kenn waru leen woon jàpp ndaxte ñi ñu waroon jàpp wala ñi ñu waroon àtte tey mooy waa ICS ñi ñu waroon jàpp ñi ñu waroon àtte tey mooy état du Sénégal mi nga xam ne complice su la di foqati suufu béykat yi waaye ba léegi am nañ mbégte ñu bàyyi leen ñu feex dellu seen kër xeex bi nag day continuer day continuer ngir Euh, ñu fay euh, béykatu Maka Dieng euh, Kër Maguey ak Tobène li ko jar ñaareel bi xeex bi day daal di continuer ngir itam ñu bañati am beneen Tobène beneen Ndingler ndaxte kat dafa doy bësoog bës tey nga dégg Tobène suba nga dégg Guéréo gannaaw suba nga dégg Kignanbour gannaaw suba nga dégg Balabougou gannaaw suba nga dégg Mekawoon wala Medina Wandifa suba nga dégg Kër Sambakan wala Kër Moussa loolu yëpp nag dafa doy loolu nag. askanu Sénégal moo war a jóg taxaw temm ne dafa doy bëggatuñu Sénégal dégg ay coowal suuf mbaan fanaay ak feneen ak feneen naka la ñuy fexe ba état du Sénégal ñu joyanti ko joyanti boo xam ne euh, dootul nit dootul mën a ti aakimoo suufu béykat nit dootul mën aakimoo manam tefes bi nga xamné ñepp ko bok nit dootul mun akimo forêt classée bi nga xamné ñun ñepp ko bok nit dootul mun akimo euh, tefes bi nga xamné mo nek ci dex yi ci fleuve yu melni, lagune euh, de Mbaling ak ñom donc lolu mo jara xex fu mu nek ni fexé ba li dal wa toben du dal benen beykat fexé ba li dal waa Ndingler ak jilax dootul dal kenen tay euh, ça fait quelques ñaari weer lañu taxawal benn plateforme bu ñuy wowe doyna doyna bo xolé ci bir ay euh, ay collectif de victimes d'accaparement euh, euh, madame Souf, mo ci nek doyna ay dañ amel ay payor, ak ñom sen wala ñu len ñom ñoo ci nek donc ça veut dire que ñun ñu ngi mais ah nit nous nga wax d'ailleurs ñuy lancer un appel à tous les citoyens sénégalais ñuy lancer un appel à toutes les victimes d'accaparement foncier ñaar wala wala un appel pour que ñu bolé suñuy un appel pour que ñun ñëpp ñu and Ben, ngir ngir fomp rongañu ku nekk ñaar ngir ñu président de la république Macky Sall mu jël dogal yi nga xamné ne dinañ bàyyi caxat caxatee souf bi comme niñ koy défé ba il faut que mu am réforme agraire il faut que ñu def un audit foncier national il faut que ñu suspendre les attributions de souf leeral li nga xamné mom lañ joxé il faut itam euh ñu euh, délimiter les différentes zones ba nga xamné dinañ xamné zone bi kat béykat yi ñom ñoko mom kenn waru ko laal zone bi kat zone classée la mala yi ak garab yi ñoo ko kenn du fa def dara waye itam zone bi mom lañ woy zone pionnière zone pionnière moy fo xamné ku bëgg investir fofu ngay dem te zone pionnière yoyu ñu gën fa dolel ñi nga xamné ñom ñoy doomi rew ndax te doomi rew moy tabax rew waxtaan wo gis euh na ci deug jitu euh nit boko ko indee ci wàllu tu attekaay faaw mu lay faaw mu wax akulay taalaam et suñu client li ñu wax muy seen akulay taalaam muy liñ leen layel moy ñom fekke wuñ defuñ. dañuy déparé foofu ba pare nag doog a toog waxtaan parce que kenn dàqul waxtaan ci mbir mi ndax mbir mi mënul am solution boo xam ne euh, day sax abadan lu dul nit ñi dañoo toog waxtaan ndax mënoo fekk ay nit seeni tool yoo xam ne seeni maam ñoo ko dëkkee ay téeméeri at nga xëy xëy rek ne leen génn leen ci euh, te amul dara loo leen dàmpee te wàllu ndàmpaay loolu damay ñaax autorités yi ak waa ICS ñu Euh, gën ci farlu ndax 1 million boo proposer ay nit ci hectare wax deug yàlla dampo len leen et population amna am yo jéego ñom xam defal nañ ko sen bop moy mooy euh, def nañ sen memorandum ba proposer ben montant montant boobu nga xam ñom proposer nañ ko nako autorité jangat buñ ci d'accordé yee buñ ci d'accord aussi ñu def contre proposition bo xam xal man nako nangu ngir ëllëg ñu am solution bo xam

population yi nga xam ne ñun ñoo leen di défendre ci loolu la ñuy woo autorité yi nga xam ne yu ñoo ñu boole yilif